safando dit ke malkamago gormatam beskendo yay mbokki Sénégal mbokki amateur yi Juufi production dellu si na cinquième journée am ci saison 2024 bi lee muy le 17 août ci arène nationale ci combat jinne combat njar ndéem combat espoir muy dox ci diggante caatu kayre ak bébé Jackson di ñaari mbër yi nga xam ne bu ñu dajee xolu amateur yi sedd loolee mooy première édition drapeau Serigne Mor le grand marabout di mara bi nga xam ne mbër mu mu yóbbu stade say mbokk kontaan te xam ne ndam ngay ñibbee ma ne spécial ba mu ne mooy dox ci diggante Cheikh Bari ak Laye Birisli loolee mooy deuxième drapeau président Cheikh Tidiane Niang responsable des écoles et écuries du Sénégal waaye diggante Boylo ak Bébé Jali loolee mooy drapeau Awa la lionne de l'intendant des palais nationaux muy jàmbaari fàkk tëdd di jigéen ju mën góor mu ne ma la ca gën a neex nag mooy combat préliminaire ya ndax dañoo xool xale yi tolloo doole xale yi mën bëre lool te teel am coow mu daal di leen di boole premier combat diggante caatu golf ak caatu marché Yille Baba ak caatu Daouda Fall numéro 2 Pape Mbaye numéro 2 ak frontière 2 Mbool ak Calki Boy Sila ak caatu Tunduba Hamza ak deux bu jànk Dakar ci atu ak Ngel Kokki ma ne ah mbokki amateur yi kon bés a ngoog le 17 août ci arène nationale ñu fekki Dioufy production ci diggante caatu Kayre ak bébé Jackson muy combat bi amateur yépp di xaar mu ne sponsor yi ñu ngi ànd ak Tampico ànd ak Boisson King ànd ak Harmonia di sponsor yi nga xam ne ku nu gunge nga ñeme fa nga jëm ak établissement Touba Darou Rahman le ci wàllu bâtiment ak civil ñu ne entrée supporter 2000 francs bu dee loo francs yi mbokki Sénégal mbokki làmb bés baa ngoog le 17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 tey nag euh, euh, dañoo am gan gan boo xamante ni macha allah di ko jaajëfalaat nag bu baax a baax ci déplacement am muy Ama Dia le phénomène ah le boo xamante ni macha allah mi ngi bëri di daan di bëgg ñi nga xamante ne ñoom ñooy àdduna mais di ci nuyu nag bu baax a baax seen waa kër yi plus particulièrement yaayam Baye Ndiass ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen moom mooy Tomaam di Ama Dia ko ni ma ko waxee rek sama deret la waaye moom damaa xuloo woon ak moom moo tax tey mu ñëw fii pour seet si ma di ci nuyu nag bokk internet yi ko doon laaj ñoom ñëpp waaw di leen ziarat bu baax a baax di leen wax incha allah ngeen gën jàppale rek gën koo ñaanal ci barke yonte bi sëñ xaadima sëñ xaadim Touba wax naa ko sa yóbbante te incha allah moom xam naa dinaa ko jox sa numéro kon li nga wax li nga wax ci moom rek ci kàttu ngeen jëflante ak ñi koy suivre ñëpp nag dañ koy bàyyi nag mu nuyoo ñu waxtaan ak moom gannaaw bañ ko félicité ci victoire bu réy boobu noonu muy combat ak ki xam te moom mooy caatu Yoff numéro 2 ginnaaw bañ sant yàlla jul si yéen ñaari waajur waaw di sant ñëpp waaw sant waa yëmbal yëpp di sant képp ku jàppale Ama ji la lay sant waaw di gërëm ñëpp di gërëm waa yëmbal comico yëpp aw ma seen fay suñu waa garage ñëpp waaw foo jógee maa seet si woon wala daa am woon daal yow da ngaa soof moo tax yow dama ne woon sa télé banaa si wax dama dama waxoon dootuma la jëlee dégg loolu sa problème la bu la neexee nga kan ma jël si arrangé wu ma. la wax de sama turandoo moo fi indi. ak kan seen waa sa problème la yaa yaa ak ñoom. waaw yàlla baax na boo ma lijjanti woon doo ñëw di ma jël. Ah, waaw déggoo ma la. sama kër nga ma fekk sama turandoo moo fi indi. waaw mais fu may njëkkee ak yow Ama Dia ñaata combat ñoo la waaw daa mel léegi moo ko ëpp ba léegi. tolloogul ba léegi. waaw euh, combat bi li internaute yëpp doon laaj mooy que ni Ama Dia nëpp la waroon a bëreel nga jàppoon ni caatu yof numéro moo gënoon a nooy changement boobu la. moo gën a nooy comme nan man nëpp suñ combat dafa yàqu. waaw Bamba Faye sama nit la. ah mu jël ñu ne ma da ngay far force bëre. parce que làmb yi préparé nga ko foo nga bëri looloo tax ñu rocc ma dugal ma foofu boole ma ak keneen waaw. xamoon nga ko. lijjanti wu ma ko sax Matar moo ma woore ne ma kaay gisanteeg moom lool laa ci ma dem gisanteeg moom waaw. Euh, dañuy ñëw ci li nga xam te ne moom mooy ci combat bi euh, avant combat bi gis nañ ni def nga fi open press open press boo xam te ne def du la neex wax lu la neex te nga bàyyi te nga fay sa téléphone bi. Euh, wax nga lu la neex def mais open press boobu noonu gis nañ ni Ama Dia ñëw indiwaat leneen bàkku fi tuus yoo xamante ne neexul gis nañ ko Ama Dia nit ñi ne champion la moom mu ne du champion day bëre nii rek. open press bi neexul. yow buñ la ko yëgalee soxorata ñëw. rek maa yëgalu sa waaye dama ne la si di fa ñëw yow maa leen di sant sauf yow képp ku fa ñëw ngir Ama maa lay sant. yow sax digganteeg yàlla. Eh, woo nga ma si bi ñëwee suba la ma wax la ko. bu dee si jour bi sax da nga war a ñëw ndax yow man ak yow soreewuñ ta Amathia loo leen bokk. yow man lan ma ko yaa Amathia loo leen bokk. léegi open press bi neexul bari na coow ñu gis ni la yàlla dogal mais yow loolu bul si soxor yow sama nit nga. Fatma Dia yow bañ bi ma bañ loolu. yàlla dogal na ko ba pare yow doo mës a bëgg mais ma ne soo ma bañee benn bañ naa la fukk. yow bëggoo ma. sa kanam guddi jigi yow sama kanam gi moo la ma maa nopp waxal rek li fi ne. yow billaay danga maa man ñaaw naa maa bëgg xam naa loolu. waaye danga maa nopp la yàlla dogal fii nga ñëw di xuloog sama yaay suñ kër. yow nga ñëw di xuloog sama yàlla nga ñëw di xuloog suñu waa a ab jëloo ma ngay xuloog suñu waa kër maa ngi nii li ngay xuloo maa ngi nii wax ma ko waaw damaa jël parce que li ma def mooma naqari dama ñëw pour xuloog yow ñëwuma pour def émission maanaam sa tomate doo nga tax ma lay jël mais bu doon sa tomate. waaw loolu la yàlla dogal. ama ji sama lépp la ñu gis am soo daan ngemb day indi naanaa indi lépp yow nga ne lépp loo xamante ne nii naanaa mën na koo def si kii ci ngemb bi wee na ko dindi mais instant bi ñaata ngemb ñaata naanaa ñaata naanaa nga ngemboo tey. loolu sa problème. ñaata nge naanaa nga ngemboo. loolu sa si man li ma ngemboo xam naa ko. mais ñaata naanaa la kilo wala kilo. loolu nga laaj ko am ñaata kilo la si def. manta wala naaw ordinaire. ordinaire la jaxase. ndax mooy daal. ak naanaa gis pasi. parce que day fayu. waaw ah, yow yamal foofu rek. waaw bu deful woon effet du daan. kon la su dee damay daan na si def café waaw. bëri di bëri di bëri indi fi benn slogan boo xam te ni yow yaa nekkoon seul mbër boo xam te ni yaa fiy def euh, li nga xam te ni moom ma yaay am combat te doo togg añ ñu añ bi nag sa turandoo da ko rayante ak abaax gaa yëpp naan am nañ problème ndax su turandoo mi ngi naan moo ko abaa am nañ problème ndax bis bu ñu toggee añ moom nga daanu moom bu boobaa añ yi dañ koy arrêté mais añ yi mosoo togg añ nga am combat tey togg añ loolu bañ jàngat nga ci def añ yi ak ba gisee gars yi du togg añ beeg teg teg li nga xamante ni moom mooy cin yeeg yooyu noonu yow lan nga xam. moo tax suñ buntu kër ma doon jooy. Ah, añ yi moo taxoon. waaw bugguma leen woon toggal. ñu añ de waaye bu doon man ak la kenn du ku ne yooyu nga doon jooy waaw bëgguma ma ñu añ neexuma. waaw ba ñu ko ba nga gisee añ yow. ba ma gisee añ ak ah. waaw neex ma si lekk bu suur ndax maa ko toog du ma ko bàyyi ñoom lu tax ma si lekk man maa ko togg. benn mën a laa leen toggal waaw. ñuy lekk nga gis leen di jooy. ñuy lekk waaw neexuma nag mais mun si dara abaa moo ma jox xaalis maa ngi koy sant di ko gërëm di ko wax ma fayam waaw abaa di ko gën a waat rek di ko waa mbër mi sa mbër la ama jaam la waaw li wax na ko def nag su ko deful dinaa dalaa si kawam de waaw. añ ñëpp doon la xalaatal nga ñëw esat ama ja nga war tuus tëgg lañ la tëggal dara. bu tëggul lu neex man soo defee dara neexuma dama la koy wax du du ma la ko jëwee. dammuloos laa ko tëgguloo muy waaw moytu sa loos bi damm yow dammuloos laa ko tëgguloo munu ko ma ne ko yow xamoo dara waaw parce que dégg na ko si open press bi mënoon na ko tëgg waaw man sama bàqu ku ne daa génnee bàqum ma waaw loolu sa yoon nekku si yow li sa bopp lool ragañu. yàlla moo ko def si ma. naturel la. noonu laa mel naturel. ma nekk xale. aw ma benn problème maa ngi gis maa ngi lay gis di su ma amoon problème bët dinaa la gis yow waaw loolu sama feeb la rek si man la nekk waaw. léegi moom mooy ci combat bi arbitre bi siffle la ma reporté dafa rëy. maa ngi leen naan sax moo ñu boole at bi siflee nga nekk gauche ki nekk droite mais Ama Dia ñëpp neen da ngay joxe sa kanam lan moo tax ngay joxe sa kanam rek. mais dañ maa dóor de ne man rek. ku kan gis ko. man ma jël ay ku nga ne ma man ma bu doon gis ko kon booy bi dama ko daan de booy bi day dóor may avancé. waaw parce que damaa bëggoon ko jàpp boo mënee mbër da nga koy jàpp daan ko. maa ko mën lu may bu ma xeexoog moom jël ku foofu lan laay wax man su ma damay man booy ma bëree yëpp kii ba ma taxee ba ma am li ma entraîné ak li ma liggéey xaju si kii man jaay doole laa doon kon rëm ay ñoom booy mbal bàyyi njaka waaw rëm bu ndaw rëm bu mag lees ji ne ñooñu laa doon jaam ba ma ñëwee taxaw ma xam ni kii ñi ma doon bëree la ko ma xam ni su ma fa nekkee di xeex moom moom du ma ko nëbbu ma daa xeex bu xeexoon jël naa ay ku bi mu njëkkee sànni duraat dama arrière mu sànni waan ma arrière ma xam xeex bi arrangé wu ma ma dox si kawam mu dóor ma kuu fii bopp ma enqué si kuu bi song mu siggil ma ma génn bi ma siggilee tamit ba maa duggaat génn mu tartari ma xam ni moom amatul équilibre ma topp ko waaw bi mu dowee ba tourné avant muy dóoraat ko ma daw jël tànk bëre moom daa parce que boo mënee nit jaru ngay xeexam moom moom daa ko mu ëpp ma fit gënu ma ñeme mais damaa xam ne jàpp ko daan ko moo gën a yomb. waaw dama ko daan ma xam ni wóorul. Ah. te arbitre di pareen saa ay nit lañ dañuy juum mën nga daan nit mu daanu soo ñu juum ñu ne la daanul moo tax ma ne comme que yegg na foofu naa koy yeggale rek ah. waaw. ko mu jaaxaan. waaw nga bëree di jooyaat sa turandoo ne damaa xam ni Sénégal niñ ma toppee mbiru yàlla la. mënu ma si dara waaw sama xool nag moo tooy ma bu ba may génn sax damay xool ni ñi nu ñu soon nii ak ñu may woo di wax lool nekk sama bopp ba may génn te sama yaay nekk foofu bëggoon naa may génn mu ñaanal ma dafa sama mag magam bu gaañu woon waaw mu dem dëj ba wàcc ma fa sama tante moo ma ñaanal waaw loolu yëpp nekk sama bopp moo tax bi ma génnee sama xol tooy rek stressé wu parce que am loo yéen woon loolu lan la lan nga waa Sénégal ñoo tax may ma man musuma bëri di tax di am stress waaye damaa dem ba xam ne nekkatuma bëril sama bopp kese su doon sama bopp rek bu may génn comme ni ma daan def laay def mais dafa am ay nit ñoo xam dañ lay bëgg te yàlla tax di lay topp am wax yoo xam dañ koy dugal sa bopp buñ ko dugalee sa bopp tamit fa foos yow boo nekkee nit yow di nga xam ni yow nit nga waaw ñëpp laa doon bëreel moo tax bi ma duggee si stade gisuma lu dul daan waaw waruma woon daanu jour boobu. nga bëri ñu mbër feeñ na Ama ja war naa mën a nekk roi des arènes wala mën naa bëreel couronne empereur loolu nan nga koy. bëriwuma couronne man sama bopp laay bëreel du pour couronne. mbër feeñ na. waaw mbër mos man damaa mosul bëre ba mosuma mosuma nekk mbër mosuma nekk mbër ñaata combat laa fi bëre. mais su ñu daan jël bu rëy gars yi jàppoon ne comédien nga te léegi. man samay jël yëpp rëy. man foo ma jàpp damay bëre bu ma jàppee damay bëre soo ma jàppee damay bëre xanaa ma bañ a am ngeem. ba tey pare woo kon pour bëre couronne empereur wala roi des arènes. non non jëluma décision boobu man sama bopp laay bëre. baax na de ndax 1 million 500 nga Balla Gaye commencé na yàlla na ko yàlla defal jàmm muy fayeeku loolu lañ ko yéene loolu wërsëgam la. te Balla Gaye bëre. <laughs> bëreewuma ak Balla Gaye soxlawuma. salaire am lépp. yàlla na ko xel di ko jël rek loolu laa koy ñaanal du ma ak moom buri sama xarit la maa ngi koy ñaanal jaam waaw jabaram moom déggante na. yow bugg xanaa bëgg ngaa bëree ba bàyyi te di nga bëree di nga gañ a kuram. bugguma ko. bugguma ko. bëriwuma koron yow yow yaay sama ménager. yow lan nga bëri bëgg bëree ko. sama bopp laay bëreel pour plaisir bëriwuma yooyu. pour nekk roi dugguma si làmb naan ay roi laay bëre. waaw man booy laay bëreel bëreewuma bi mu tuddee boppam taxaw ne il faut que li nga def turandoom daf koo metti mu ne dafa pare pour may na chance bëre ak yow avance beeg lépp nañ la ko jox moom na ñëw rek bëre est que tey pare nga. kan moo wax loolu. caatu yoof waaw. waaw ah, merci. boo doon pare fa. waaw amiin waay. sa waay fa yow ma. waaw amiin yow ya. waaw baax na waaw. aba abare nañ nañ déggante nii abare. abare nañ déggante émission. baax na si kanam buri nga waxtu eh, yow fay nga ma. waaw dama ne ndax danga fay nga ma. Eh, ba léegi naa ñu may woo nag du ma leen jël. sëñ Xaadim bu wér a wér ah borom Tuubaa sa mbër nii sëñ Xaadim nee na. de il faut ngeen déggante mu am lum la mosal sëñ xaadim depuis Touba sëñ xaadim def gis démb ba tey nag mën a sa mbër mi man ko kooku moom damaa xuloog moom mais sëñ xaadim def gis ñu ngi koy ziar bu réer après incha allah sa mbër bi dina la woo. sëñ xaadim waaw def gis waaw maa ngi koy ñaanal jaamu di ko wax li mu wax na ko def rek ñun sama waay la ñaanal na ma ba sonn yàlla na ko yàlla defal jaam. combat bi dinañ la duma mais incha allah yow yaay def. da nga gis ku ma duma yow. jël naa ay coup mais du duma ku duma kuñ duma mooy mbër bu ñuy topp muy daw man nee naa la arbitre du du def nii lool sama ngor ma ma ko arbitre nga daan ma mu gën arbitre def ma nii waaw sama moroom bu ma taxawal moom xanaa ñun lu yàlla dogal nga ñu li ñuy wax yeew nga yeew ma bu ma ne ngoon du mënuma dara waaye boo ma yeewee sax damay taxaw nga daan waaye du ma réer waaw. nga xam te askan wi gis nañ ni phénomène bu na fi. mais tey ku li mu wax rek ngay def loo xamante ni naturellement euh, loo xamante tey nit ñi dañ la ci bëgg dégg nañ sax ñu bu dul daanu ay defet bëgg nañu mais loolu nan nga bëggee dégg nañ sax ñoom ñu ne boo doon am chaque jour defet sax bëgg nañu waaw loolu yàlla moo koy def si nit du man man Sénégal nee naa la defaluma kenn lu muy bëggee wala lu may toppee xëy na yàlla moo jël am lu mu jël si man def ko si man nit ñi bëgg ma waaw man defuma fi dara defuma fi lu mbër deful mbër am na fi dix victoire te nit ñi topp ñu ko loolu ya dogalu yàlla la yàlla mooy dogal te maa ngi siy sant yàlla waaw bu yàlla dogalee mu jeex tamit ñoo xam ne jeex na mais lu yàlla dogal nañ xam ne nañ ko nangu rek. waaw mais moom te ne àdduna ñëpp moom la ñu waxtaanee muy su combat bu si tax combat boobu ñëpp na ay phénomène lañ ñoom ñaar ñoo war a bëre kenn ku nekk dafa war a xëccoo kan moo ci moom askan wi dégg nañ bu si te keroog lu mu la wax. lan la dama ne la Bou Siteu buñ buñ ñu piiraloon fii léegi dix combats ma daan ko dix jël. man juguma si. dugg na avion dem na Dubaay bëri na MMA. Bou Siteu yi ñoo fa nax yax yi moom ba mu demee Dubaay lu mu fi indi der la fi ñu jàpp ko yi buddi ba si kaw doo suuf man niñ ko daanee. daa nekkoon ci ay. daa ko sa waa may ma tuuti nga woowaat ma sama turandoo moomul téléphone bi maa xam dama ne la buñ tiire woon dix jël ma daan dix combat ma daan ko dix jël amul amul bëre bu ma daan maa ko mën maa doole man sama réewe du moom man dama ne la woon keroog pare wu ma sax pour bëree ak moom dama ne woon dépassé naa problème parce que du ma topp benn mbër naan dama koy topp di ko tëkk te mbër bi ngay tëkk ko amul njëriñ waaw man MMA def kii nu mu tudd euh, lii bu mu defoon moog Laurent damaa fàtte kii bi euh, dem def fi MMA dóorante gars yi kur faj doo gis ko ah. king boxing. waaw na ñëw ñu king boxing. bu amee fit. nañ balaa ñuy bëri arène nañ ñu yobu king boxi mu duma ko ba pare. sama torondoo lan moo si yoonam sama torondoo daa dugg si géew xam hmm. nga tuggul si géew di man maa dugg si géew gi sama torondoo xamal lu maam ñu woo ma ne ma lii ma ne ko waaw man cër boobu moom jox naa ko waaye sama lu may bëre yoonam nekku si su may bëree sax mu ngi nii lu ma bàyyi ma fen musuma woo dama amaje ah, defal nii ndax xam ne su ma duggee si yow damay def moom depuis mbapat suñ relation nit ñi ñoo xamul mais du du du làmb man ak moom du làmb ñëpp xam nañ daf ma yar ma daan bëre mbapat muy dagg yitteem am na sama mbapat bu ma doon bëre maanaam mu jaara xëy na moom dina ko fàtte foto moom mu ngi sama ginnaaw taxaw photo yaa ngi ci man am na foto yoo xam ne jour bu may bëreeg moo jaar bi laa toje moom moo xotti base bi ne ma jaaral nii loolu du ma ko mës a fàtte ba ma koy waa yàgg nañ depuis mbapat moom moo ma yar moo ma defal lépp kon du ay làmbu yi quoi waaw man maa jël sama tur bi nag maanaam ma delloo ko njukkal parce que lim ma doon defal waaw ay mbër a fi topp leen woon man waaw man comédien la comédien waaw loolu la yàlla dogal. ñu jàppee comédien. non jàppee wuñ la comédien de yow da ngay nax gaay de ñu gis yaak Laurent da ngeen xaw a nuroo euh, ni ngeen dugg see day kaf di wax di bëri di daan ñu gis même chose la aussi def yéen laaj naa ko mun a yéen ñaar ay xarit ngeen yàq combat bu neex. ku la wax combat bi daa yàq ay xarit duñ bëri loolu du si dara Balla Gaye ngi nii nañ xool si mbër yu mag yi Balla Gaye Eumeu seen ñoom booy ñaar ñaata yoon lañ daje di. saafonte loolu du dara man ak mu mën nañ nekk ay gaan mais bu ñu fayee xaalis ah. lamb boole ñu dañoo war a bëre parce que man maa koy may moom mu may may xëy na nag bu ko neexee bu bañee bëre man lool amul problème mën na jël yoon ma jël sama yoon ma ne même chose mais dama bu ñu lamb boolee ñu fay ñu dañuy bëre parce que Laurent dañuy déggante ah. mais loolu yàqul lamb nañ xool si mbër yu mag yi ñoom suñu waree dem fenn wala ñu war a daje. Gris Bordeaux lalu mbër yu mag yi la. yéen ñëpp mooy ak yow mooy nekk Gris dara de. Ah? Gris nekkul sama dara. du sa kii du sa président. yu mag man boo commencé Gris Bordeaux nekkul sama dara. mooy VIP. kon mooy VIP. yow fan laa nekkee VIP. Ah. dama ne la Gris Bordeaux. moom na jiite mbër yu mag yi man jiite wu ah. man Ama Dia Gris Bordeaux jiite woo ma ndax lijjanti woo faale woon boo ma jiite woon di nga ma di ma faale. Hmm. waaw moom faale woon. dagg nañ ma fan. lu dul kaa génnagul xamaguma ñaar lañ ma dagg. ku ma dagg. waa CNG buñ ma daggee. ñoom nañ na leen neex rek ñu dagg ma waaye defuma luñ may daggee. ñëw naa heure. Ah. arbitre bi suuf leen naa arrière ma génnu ma saako. kenn defuma nii kon lu lay benn yoon ta te tardement tardement lañ ma mës a daggee waaw benn yoon boobu mosu maa dagg waaw te léegi fu une jotee maa ñëw ànd ak sama turandoo togg samay ànd ak moom ranger ko saisi doo ko bëre ah. waaw. mais mais eh, togg gis nañ ndox ak kii te gis nañ ki nga xamante ne nag am na ay boissons yoo xamante ne macha allah dañ la cee war a sponsoriser boo boisson man boisson. as ndaw laa xam. laa. Tampico. waaw king bi. moo lay sponsorisé. waaw moom mooy fay moo tax moom mooy fay man king yu ay king Tampico ñooñu nit la man même boobu budul publicité sax même budul Tampico dara man Catalina sama nit la man daf may woo di ma yedd ba bu ma bëree bu suba moom moo njëkk a yëkkati téléphone woo ma appel WhatsApp. mais nit du xaalis quoi nañ xool cër maa ak nit lu mu lay njëriñ Catalina fa baax heure bu ma demee stade même bu dul cadre ma wax si tàmbi ko keroog moom nekku fa pourtant ay nitam bi ma daanee dañoo jël seen boisson jox ma man heure bu ma demee stade mu yëkkati boisson jox ma keroog bu ma demee si kiiwam biiram dafa yëkkati xaalis bu bëri may ma te boobu pourtant nekkul damaa publicité nekkuma dara mu yëkkati xaalisam may ma jël ay kees nag yàlla xam na ne moo ma tiim ki ay kees yu bari la jox ma ne ko lii mun ma ko yóbbu man moto laa yor ma jël li ma mën a jël mu bind ma këyit ma dem jël ko Catalina sama nit la nekkul ay boisson ay kii boisson bu ma demee suñu waa kër dama leen si may may si samay nit. d'accord mais yow changé nga instant bi ay airport yoroo woon yi. kaay rek mayaat nañ ma airport mais sama turandoo xam nga moom sàcc la moo tax man ma ne ko comme sàcc nga naa la bàyyi ak moom. mais yii yii yu non yii mooy yooyu ba léegi. ah may na ma yu bees mais takkuma ko yii moo ma gënal yooyu ku may may na ma may yii. tolloog son Waly Seck beeg Mia bi. Waly. waaw Waly. waaw dégluwuma ko sax. Hmm. Waly dama ko mere. Waly damay am combat wu ma. waaw Waly ma war a jàppale. mere naa ko trop. mais yoon yamu ci benn. waaw. ñu ngi koy fu ñu toll dañ koy woo nag duñ mës a jug di ko woo ndax dañoo war a jàppale même bu ma jàppalu sax dama koy woo waaw. ba nga bëree ba tey la man maa ngi nii yoruma dër. da téléphone bi Amadio moo ma ko jox bii ma ko jox tey pour ma wuyu de bëri ki de jour bu ñu nee combat bi des na deux jours la sama téléphone fay sama numéro yëpp dem instant yii di lancer appel yëpp képp ku yor sama numéro. nga me boo ma messager nga bu ma la woowul nga xam ni yoruma sa numéro sama téléphone dafa yàqu bu bu bu comment dese deux jours la yàqu ñaari téléphone laa yoroon benn bi nabar la si la dugaloon sama piis di si wuyu ama jo moom bër démb la ma jox bii ne ma téyel bii waaw téléphone boobu laa yor nii di si wuyu moom sama turandoo la mu jël téléphone am jox ma waa ama moom léegi VIP la iPhone la yor waaw sama waay la moo ma non man téléphone techno sax moo ma gën a. bëgg naa iPhone 15 nag. iPhone 15 laa looy de. waaw bëgg naa ko suñ ma ma may suñ ma ko may ma may wax ju bëri rek nga ma amaloo ma njëriñ di dégg ma sa lii lii kasa la amaloo benn njëriñ <laughs> sëñ xaadim xaa def gis xaalis bi su jaaree si Fatma Dia mooy waaye dinaa du ma si jot ah. waaw yow xaalis su jaaree sa loxo du si jot ndax tëri di ko jaajëfalaat bu baax a baax mbokk internet ñu doon suivre à travers Kewel Info tey nag mu ñëwoon fii si Kewel Info doon xoolaale mu dul ñàkk ko li ma wax suma deret la moom Amba Dieng di ko ñaanal rek bon vent di ko ñaanal yàlla ah lépp doon jàmm ci barke yonent bi mais di ko souhaité waale un joyeux anniversaire nanga ko happy birthday to you muy Siga Dione Siga Dione bu tafaatin day anniversaire souhaité kuy Siga Dione. rakku tafaatin. rakku tafaatin bu bawal man ay xeetu tafaatin sax bu ma woon waxoon ñu. tafaatin day rey. nu mu tudd. Siga Siga maa lay souhaité Siga Dione di la wax amati neen joyeux anniversaire waaw bonne déwén bonne année longue vie à toi la veuve maa lay souhaité di souhaité tafaati ndax bugguma bëri ak moom te dama bëgg nga boole ñu ñu nekk ay xarit ndax ñu bañ a bëri waaw yàlla na ko yàlla defal daal njaatin moom mos nañ déggan da sama waay la daf may rée rek waaw di ngay ñaanal daal Siga invité nga toogu ay ñam na nga toogu loo toogu baax na dinaa ñëw. yoruma xaalis waaw buñ ma nit ñi dimbalee. abaa jox ma li ma war a jox <laughs> xëy na dinaa yor abaa yaay sama lépp. abaa ma yow xaar te yaay sama lépp te jamono jii ñëpp nee nañ mburu abaa mburu abaa. abaa buusita dafa am ay nitam. yaa may dégg ay nitam di ko jàppale te waxu ko kenn man ma am sama nit ki mel ni masi la kooku amuma fayam masi la dama koy ñaanal jàmm di ko wax yàlla na ko yàlla defal jàmm ak ay njabootam dama ñëw këram laa mujj yëgaluma ko nii laa ko doon rombee du ma yëgal waaye yedd ma te rusloo na ma ma ñëw këram mu yëgal xaalis bëri jàpp si tike yi bu baax a baax nag Ama Dia mii moo ma fa yóbbu mais dama xuloo woon ak moom sax doonu ma ko tudd. waaw dañ may toppatoo. dañ may toppatoo. Babacar Karinton du ma jug si di ko sant kooku lépp lu moom la lu bari moo ko def si man. yaasin Diop mi ma booleeg moom yaasin bu nekk jam ñaado maa ngi koy sant di ko gërëm di sant sama mag hélas kooku sax du ma ko sant ndax sàcc la bi kii Babacar national séeri ay sa balaa ko moo yëkkati xaalis du ma ko tudd xaalis bu ma xaalis la ma may hélas yoreel na ma si dix mille parce que damaa jox dafa am lu ma jox mu des quinze mille mu jox ma cinq mille dama après naa lu jox ay sa hélas joxaguma sama xaalis da see wàññi pour muy leer sama yaay fekke na ko waaw nay leer man sama jabar madame Penda waaw da doon siiñ <laughs> daanul rien xam nga moom day fas kanam gi rek mais victoire moom day signé nag gëmewu ko gëmewu ko de kooku du rien man mii sax non li ñuy kii discuter sa bun day ñaangal rek pareen saa ma cokotaan ko mu réewee ma daw bàyyi ko fa wa non day ñaangal rek sa yaay sa nañ ko mu ne moom du la xool yow da nga ko rus loolu lan la waaw sama yaay moom xam na xam nga moo toog wax man daanu ma toog sax di wax si moom am na keesa buy daaw suñ sama diggante moom mais cër la rek man moonoom nu mu meloon nu mu sama mag ak sama beneen rakk bi meluñu ko man du ma si xool sama sama maanaam dama ko bëgg bëgguma lu ko naqari su tëddee nii sax am lu koy xaw a metti sax man du ma ñëw di ko laaj parce que sam man aatanuma lool damay ñëw rek romb ko su ma koy xool na ko yaay tan yaay lu ma bëgg xam sax lu koy metti sama yaay la sama xol la moom moo toog di wax rek waaye man moom lu mu def si ñun ñun toog naa si alema ñoon wax ko ne sama yaay mun ñun buggul lu ko lu ñu naqari moom ñun guddee sax suñ ko defee si day jaabante si ëtt bi tàngo duggoo du ñëw tàngo duggoo mais man am na keesa buy dox suñ diggante sama yaay la man nu ma yebee sam papa sax maanaam moom boo bokkul man sama yaay bu ma ko buggee wax dara moo tax heure bu ma toogee sama néeg mu ne ma amaja kaay damay tiit sama fit bi danaa tëf parce que wax lu dul fulla maanaam suñu mbalak sax bëriwul par exemple nag ma tooñ ko mbala ko meer affaire yooy wa mais am na foo xam ne nii dañ faa yam bu ma wooyee nii dama am dama la soxla rek damay tëb damay damay xam ni moom am na lu am fulla lu may wax. Ama ko takkal soxna mu ah, koy takkal merul de ndax dafa kan moo ko piis. xale moo daan piis. loolu la yàlla dogal. xale bi moo daan ah, sama yaay sama yaay dèjà affaire ségrégation la parce xale bu ma takk yaam ak sama yaay ñoo bokk ndey baay. ñoo bokk benn kër. non amuñu at. déedéet moom dafa ñëw si kër gi di fa vacances. Mm. waaw di sant sama yaay jooju yaayam ma ngi koy ñaanal yàlla xaaral ko àjjana ak papaam yàlla kooku man maa yaayam maay papaam moo tax ma fonk ko kooku waxante wuñ saa yi dama laa bëgg dañoo rusante woon dañ doon piisante xam nga di def di saar man de daal loolu xam fii lañ ko fekk kan non man bëggoon naa ko mais biñ may wax di ma ko puree dama leen kii soxlawu ma ko waaw mais nit saagu fii lañ ko fekk. mais avant avant nga toog di waxtaan. sama jabar daanuñ toog nag mais moom nag ku avant ma koy takk man xam nga boobu moom daanu ma dox doon man génn taamu ma ko guddi man ma daan tëdd nii mais heure bu ma génnoon ba ay 5 heures wala ba timis fekk ma si àll su ma ñëwee damay fekk mu defal ma sama reer ak lépp. te boobu maanaam suñu wax sax bëriwul daf may tegal reer ma ñëw reer su ma ñëwee damay ñëw sama bopp la la koy teg. magal boo xam ne dala doon doxaan nga koy doxaan ci waaw loolu laaj nga ko fii ma wax ko du ma ko waxaat waxuma boobu waaw mos na toj sama bopp daa am benn booy bu ma fi doon seet suñ kër waaw kooku kooku kooku sax laa doon nekkal kooku mu may dégg xam naa du ma tudd turam léegi am na jëkkër maa ngi koy ñaanal kooku sax laa yaakaar woon laay tax kooku def nañ ay quatre ans waaw mais su bu waay bi def na ko su fa ñëwee. pexe danaa moom danaa ko usu nekku fi ama ja nekku fi. waaw mais boo man xaw ma si dara. waaw bu ma ñëwee bu ñëwee booy bi danaan ko ama ja nekku fi demal su ko defee booy bi da may woo ne ma sa rakk bi dafa dafa soof dafa soxal ma ne ko amul problème ko sama rakk la waaw mais boobu man comprendre ma daal. wa mais yàlla di dogal ñuy dem di dem après ngay gën. si boobu même chose rek kooku moo fa ñëwoon rek ñuy lii rek mu ma dugg mu poñe ma ah. ne ma ne kii kan la ko kii sama xarit non non boobu comme nii rek commencé nañu xamante mooy affaire yooyu Fatma nee na bul dugg sama vie privée ah. nëbb secret daal. waaw man ak moom yëpp du ma nëbbu. noboon na ma nob naa ko yàlla dogal mu may fiire ma ne fiire. waaw. siwo la ma dóor taatu siwo yii siwo la jër si taat bi la ma dóor si bopp <laughs> waa xam nga ma téye loxo yi ñuy jàppante mu jël siwo dóor ma sama bopp te kii nañ leen kenn fi ñu doon xeexee boobu guddi la kenn nekku fa ma xam li ma xam rek kenn waxuma toj bi rëyul dama ñëw rek tëdd xuloo wuñ si mais boobu dañoo bëggante Fatma Dia nag duggal sa vie privée yow ki nga doon bëgganteel noo leen demee <laughs> sama vie privée nag ah, bëgg naa ko bëgg na ma takk naa ko jeex na du ma si waxaat ah baal ma sant ma ay sant ñëpp di gërëm waa Yumbal yow ni nga mel baaxul nit du dugg si vie privée jàmbur yow ki ki doxaan noo leen def waaw da ngaa dugg doxaan waaw ah, waaw sama yaay sama yaay sama yaay sama yaay sama xarit la sama lépp la man sama yaay la man dama ko war a bëgg di ko jàppale man sama yaay dama ko bëgg dimbali sama yaay ñun sama yaay daa sonn de demal nga laaj waa koñ mi ngay laaj sama yaay nu mu sonnee ci doom nekkul lu may wax la loo xam ne nii nekkul su man sama yaay dafa sonn si ñun ñun luñ bëgg bëgg na ñun buñ soxla woon xaalis danaan dem dina fexe ba lijjanti jox ñu même bu xaalis see sax moom dina ko fay sama yaay léegi la commencé parce que instant yi nii nekkatul. xale boo xam ne day dem di jaay di sonn ñun dañoo war a dimbali suñu yaay waaw te yi dañoo laaj ku ñu jàppale ñu dimbali suñu yaay tamit waaw muy ki nga xam te ne moom mooy Ndeye Seck euh, euh, Dev Ndeye Seck nag nekk fii si Géejawaay mu amoon benn blessure boo xam te ne defoon benn euh, blessure ci gannaaw ci loolu nag di ko di jaajëfal nag ki nga xam te ne moom mooy buur géwél ndax gis nañ affaire bi yàgg na ku ci mel ni Kandji production doon na jàpp ci euh, ci affaire boobu noonu mais dañuy wax rek mention spéciale à Siga Dione ñu ngi koy félicité waat bu baax a baax ndax lépp tey bu amee c'est grâce à moom fexe nañ ne kii nga xamante ne moom mooy père euh, am benn kilifa goo xamante ni euh, ndax kii di Ama sax moo ko fàttali benn kilifa goo xamante ni moom moo ko jël en charge moom day sekk jox ko nag ci li nga xamante ni jox ko xaalis un million et quelque xam naa après dinañ si ñëwaat loolu mu nekk loo xamante ni euh, ci émission bi nga xamante ni moom mooy pencum làmb la jaaree euh, te loolu yëpp bu amee nag c'est grâce à Siga jon bi nga xamante ni macha allah moom moo ci nekkoon def ci euh, bay ci waaram. Kandji production gis nañ nag doon na ko jàppale doon ko ci faj ci faj bi mais daal bañ ciy jëlee li nga xamante ne wasu ci àq jox ki nga xamante ne moom mooy buur géwal mu woo ko expliqué li nga xamante ne moom mooy cas bi wax dëgg yàlla ñoom ñu traite ko moom ñoom père yi di leen ñaanal bu baax a baax gudd fa nag wér li nga xamante ni daan moom la waroon def opération bi mën nañoo wax ni tamit mat na euh, ci loolu tamit siga am na benn xaalis boo xamante ne mi ngi ko doon euh, dajaleel am na ci cinq mille francs yoo xamante ne siga jox na ko ko dajaleel ko ko jox ko ko pour mu boole ko ci un million et yooyu noonu mooy ki xam te moom mooy Ndeye Seck nag nekk xale boo xam te ni xale bu jàmbaare xale boo xam te ni mi ngi woon géejawaay macha allah di dimbali ñëpp mu nekk loo xam te ni daal Siga Jonn ñu ko ci félicité waat bu baax a baax ay waay usubaay ma Siga Dior ñu koy ci félicité encore une fois di la wax merci beaucoup yow moom chaque jour nit bu amee day nekk ci jafe-jafe mais boo ko yëgee di nga leen di soutenir te bëggoon a kenn wax ko mais nag wax dëgg yàlla nit bu defee lu baax da nga koy wax mais Père Bécaye ñu ngi koy jaay jaajëfalaat encore une fois kilifa gu mag googu nga xam te ne yëkkati xaalis pour jox ko Ndeye Seck mu faju ci te ne carrément kilifa googu bëggul ko tudd turam en tout cas ngi koy wax daal bon rétablissement di ko ñaanal yàlla opération boobu yàlla na réussir ci barke Yonent bi lan lan ngay tàggatoo. marché asalem maa ngi koy sant. waaw Ahmed borom marché asalem lay sant di la wax damaa perdre numéro moo tax woo ma la damaa ñëw asalem nga boole ma say nit jox ma xaalis bëri ama sa fay Babacar Karinton chaque jour dama lay chaque jour du noppi si du la tudd yow. waaw li nga ma defar réy na maa lay a jàmm waa ngor aw ma seen fay waa ngor maam bu ngor maam moom mu may dégg ngor la dëkk di leen waa ngor yëpp nañ ma xaar waa waa jurbel waa kambureen fils de liiru lu ma jug si di sant jàpp nga si combat bi yow sama waay nga waa kambureen bi yëpp maa ngi leen sant suñu waa dëkk morala kër mbir daaru alfa ngéng kër daawda kër Daawda kër yaa Yusuf waa yaa yaa Yusuf aw ma fayam sama yaay jooju waa ñu Malick Faye Malick Faye aw ma fayam di ñaanal sama sama sama jabaru sama jabar magam bi gaañu Ndaam Gueye waaw tey la woon ñaan bi sax mënu ma woon dem waaw maa ngi Ndaam Gueye maa ngi koy laas sama tiset bi moom laa si defoon moom laa defoon hommage si open presse bi Ndaam Gueye maa ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana waaw di ko ñaanal fi mu nekk yàlla na ko gënal fu mu jóge waaw nit ku baax avant moo dem daf maa woo yedd ma ba mu ba mu rus waaw yàlla jël ko mais xëy na loolu la yàlla dogal waaw ñu ngi koy sant di sant waa yoof yëpp waaw ki ma doon bëree yoof la dëkk mais foofu dafa fa am ay nit waa yoof ñoom nday xadi papa Guèye waaw ñooñ samay goro lañ papa Guèye oma fayam chaque jour yaa ngi may woo di ma ñaanal di gërëm ñëpp waa waa caw leen te ngéej waa caw leen jàpp nañ si combat bi waa caw leen aw ma seen fay maa leen di ñaanal waaw Amadio moo ma boole yéen de sama turandoo waaye dina ma bàyyi ak man yéen laa am waaw su ma fay ñëw du ko mës a képp ku jàpp si combat bi maa lay sant. hélas kii Babacar l'international Séré Aïssa balaa ko maa lay ñaanal jàmm jàpp nga si combat bu baax a baax a baax maa lay sant Moussa Kalaamu jàpp nga si combat bi waaw gis naa li ma defal aw ma sa fay dinaa ñëw ba sa kër képp ku képp ku jàppale Ama Dia aba yow du ma la tudd. maa ngi xaar nag maa ngi toog de te yaa ko wax nag na nga ko def waaw abaa pour nga dégg lu may wax aba jaay nii yow yow bu la kenn wax kan moo la ko wax amaguma visa dama bëgg a ñaan buñ ma mënee may ñu ma visa ma dem entraîné ñi bi billaahi aw ma sa turandoo moo la ko wax lu tax lu tax waxuma ko moo aw ma visa tey man moto xottu moto sax aw ma ko man su may dem damay dox barke alxuraan aw ma woto aw ma dara Faal ma ja Faal ma ja yow bu góoma boo waxee ñuy a ah, am naa man yoruma dara maa ngi gërëm yëpp képp ku ma bëgg a jàppale nag ma jàppale abaa maa lay xaar abaa abaa wax naa la ko trois fois waaw yow sama nit nga sama xarit nga looloo wax di nga ko def yàlla la yàlla defal jàmm waaw affaire bi def ko rek mu jeex yow sama see ñëpp di woowaat ñëpp waaw di leen ñaanal jàmm waaw wasalaam.